kon lii rek dix heures demi fi mu toll nii waa allo Samba Samba dafa li ngay def nga gaaw ñëw naaj na et eh, wuy ma cinq minutes maa ngi la koy xaar boo ñëwul damay dem de baax na xaalis damay Faati jox ma suba jox ma ngoon jox ma suba jox ma ngoon. kañ lay dat waa léegi nag su ma la laajul kan laay laaj. Faati xanaa du yéen yéen doon bëgg ñu voté leen parité. ah bu baax. waaw bi ko assemblée national voté ba tey. Mhm. yéen parité boobu xanaa mu leen koo doxal ci biir kër yi noppal ñu ngir yàlla. ci biir kër yi kooku duma na ne. ah waxal leneen. xoolal. man damaa yoru xaalis bu ma lay jox tey jii. loolu làkk la wala lépp. waaw. Biraago xam nga lan la jox ma xaalis damay dem. dërëm laa yorul. damaa bëgg nga débrouiller xam noo def. man damaa am soxla di ko doxi. ma xam nu ma rek man. waaw waa baax na. yaa ngi dem waaye na la leer na boo ñëwee doo lekk. sàmm nag bu ñëwee ne ko jiitu naa ko. waa baax na. boo ñëwee de bii doo ko def naye naye bay bëgg de ku ko laaj xaalis rek mu ne tey mu rey boppam waaye damay fëgg samay tànk moom set ma jàpp sama njax tey boo ñëwee doo lekk de bu dee man ak man rek ah. déedéet xanaa damay gént walla la vingt-cinq mille ki ma laaj ko mu wax fii bay wax lox na yorul dara waaye bàkk na njaag te tey nag njaag du koy wuyu biir nag ki dinaa ko wan ne du bandi man mii nag maay bandi Okay. xëpp di lan la. lii xeeñ ci kër gi moom lay seet. ah lii xeeñ ci kër gi nag Birago mu ngi ci waañ bi nekkul ci saal bi demal seet ko ci waañ bi loo ci xamul nag dangaa génn rek yàlla ñëw fekk ma nag ba ci sama biir salon bi defal ma teraanga. waxoo li amoon. ah. yow yàlla buy ñëw dina bàyyi ba man mi borom kër gi génn muy ñëw sama ginnaaw. waa léegi yàlla muy defal jaamam teraanga lan la ciy xaar borom kër dama ni la yàllaa ñëw ma dem marché xam nga man dama laa bëgg sii laa la def. ndugal la ginaari tol ni nii ko ba mu baax jinjee ko poobal ko. amul lu ma lay xamal ci biir xaalis. ah ban xaalis ah déedéet da nga ju da ma joxon xaalis sama loxo bi mané indi xaalis bi. dama ni la nak da ma joxon xaalis loolu la lay laaj wa wala déet joxon nga ma xaalis ñew laajuma la fi nga dama yoro ñaar deureum ma laaja xaalis de xam nga luma lay yëgal. demal nga sangu ba set ma dugg ci biir waañ bi defal la say ginaar nga lek ila mën ci yow